lii moo des ci kër lee ginnaaw bi ko seen goro taalee ndax problème bi mu amoon ak borom këram. ñu nekk nag di kër bërti bërti bërti bërti mu téye ko benn place yëf yi yàgg lool ma génn ci mbedd ma moom xamul na sama génn si mbedd ma ma génn ci mbedd ma ma naan sama borom kër si mbedd man de maa ngi dem police ndax comme que kenn nanguwul dugg su ma demee police ñoom dinañ ñëw àtte ma dem police yàgg police nag ñu ne ma dafa am benn intervention bu am ci biir point E léegi da ngay toog xaar. ma toog xaar lu mat une de temps ba auto police bi ñëw mu ne ma ànd leen ñu ànd ma ànd ak auto police bi ñëw rek fekk ñëpp di fay lakk gi loolu laa ci am. li fa yàqu kenn mënu ko xayma ndax. desetuñu dara. li fi yàqu bari na man mënu ma man amatuma yëre bu ma sol amatuma dara. dara frigo bi kese amatuma yëre sama doom bu jigéen bi sama doom moom jëkkër ji mais moom ay bagage am génne na ko. léegi ñun de ñu ngi koy woo ba léegi gisuñu ko parce que démb ba ma leen bàyyee police laa ñibbisi rek ñii ñëpp ñibbi police police bàyyi leen ñu génn. mbir yaa ngi ci loxo yoon ndax ñoom pare wuñu pour jëlale li ni mel. su ma demee police ñoom dinañ ñëw àtte ma dem police yàgg police nag ñu ne ma dafa am benn intervention bu am ci biir point E léegi da toog xaar ma toog xaar lu mat une de temps ba oto police bi ñëw. mun ne ma ànd leen ñu ma ànd ak oto police bi ñëw rek fekk ñëpp di fay lakk gi loolu laa ci am. police da nee na dina suivre enquête bi man ko nag du ma bàyyi mu ne ma yëf yi du gaaw ndànk-ndànk mais ñun tamit dinañ topp waaw. diplôme lal. lépp luy bien matériel rek léegi doom la li mu ngi xewee ay booru 17 heures bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ginnaaw bi mu roñee ay bagage la def li wa kër gi ñu ngi sant yàlla comme que benn bakkan rootu ci wante dinañ bàyyi yoon mu def liggéeyam ndax fi mu nekk nii affaire bi mbiru yoon la